tëdd fii Sénégal saa yu demee bay def benn affaire na fàttaliku ñooñu ay homme de valeur nañ ay femme de valeur nañ mu copier ci ñoom di doxalee te xam ni Europe mënu faa fekk fi jikko joo xam ne gisu ko fii mënu fa fekk valeur boo xam ne bàyyi ko fii ba pare mhm. je pense que si loolu rek laa koy invité encore une fois di ko mhm. ñaanal famille am également tamit yàlla di sant yàlla li nga xam ni am nañ nouvelle ci moom mhm. di ñaanal famille am tamit ñu gën ko ñaanal di ñaan autorité tamit ñu gën ko assister. Mhm. mais maître au-delà de Diary Sow est-ce que waruñ se lii rek euh, suñu défiance ñu nemmeeku suñu système éducatif bi parce que à chaque fois rek nos meilleurs élèves nos meilleurs hommes il faut que rek ñu dem vers l'étranger ñu gis carrément peut-être jaari Sow li moo ko arrivé mais dañuy seetlu aussi il a beaucoup de fuite de cerveau. waaw xam nga yooyu yëpp c'est parce que notre système éducatif. Mhm. est carent. Mhm. dafa bëri problème d'ailleurs loolu booy xool qu'est-ce qui perd c'est le Sénégal qui perd. voilà Sénégal moo si mooy investir xam nga tamit mhm. euh, njaat. man je suis un pur produit de l'école publique. macha allah ba ba loolu amee damaa toog pour jariñ sama réew. waxuma ku nekk bitim réew rek jariñoo sa réew. au mhm. contraire man ragal gis naa ni sax waa bitim réew li ñuy dugal ci réew mi. Mhm. am na solo am solo goo xam même pouvoir public sax nangu nañ ne ñoom plus-value nañ. te il faut signaler aussi ñoom bu ñu ñëwee fii tamit pour servir leur peuple nit yi du leen bàyyi nopp. aussi voilà c'est ça xam nga c'est ça le problème. xam nga uh-huh. loolu tamit la faute à qui je pense que le problème c'est au niveau de nos services de nos autorités étatiques. Uh-huh. ñi nga xam ni ay ay cerveau lañu. Uh-huh. maanaam ay boroomi xam-xam lañ. seen xam-xam ñoom pare nañ pour mettre la disposition du Sénégal nañ leen créer les condition de leur retour. Mm-hmm. bu ñu ñëwee fii bu ñu leen xool avec un œil complexé. Mm-hmm. nañ leen xoolee bëtu ñii ay sénégalais lañ. voilà am na lu ñu jëlee jàggaane bitim réew indi ko. au mm-hmm. même titre que les autres sénégalais yoo xam nga njaat bari na ñoo xamante ne nii ay bitim réew lañ nekk fu mel ni Maroc. médecine pourtant médecins yu bari Maroc fii lañ jàngee fii Sénégal. médecins yu bari au niveau de la sous-région en Afrique. de de la région ouest africaine fii lañ jàngee ici au Sénégal kon Sénégal am na xam-xam. Sénégal am na ay cerveau yu fi nekk. ñooñu tamit buñ bu ñu ñëwee nañu leen créer ay conditions yu ñëwaat war ne ñoom dañoo ñibbi si seen réew ñu jox leen seen cër jox leen li ñu war ñu mën a jël expertise bi ñu am au niveau international ñu mën ko mettre à la disposition des Sénégalais te Sénégal rek moo si gagné je pense que ku jugee Chine wala ku jugee Russie. ñu former la Russie wala ñu former Allemagne former États-Unis si dans les plus grandes universités du monde ñooñu am na lu ñu war a jariñ Sénégalais mm-hmm. mais di créer conditions yi nga xam ni boo deful politique rek mënoo jariñ wala boo deful nangam mm-hmm. sangam je pense que ça c'est insulter l'intelligence des Sénégalais c'est insulter même la dignité de ces cerveaux là c'est la mm-hmm. raison pour laquelle d'ailleurs ma leen lancer un appel solennel nañ ñëw massivement à mhm. l'appel du président Sonko je pense que ñoom sax bari nañ ci ñoom mhm. ñoo xam ne ñu ngi ànd ak président Sonko mhm. ñenn ñu ngi joxe seen xalaat ñenn ñu ngi joxe seen doole ñenn ñi ñu koy jox seen temps di ko wax problème yi am foofu également di wax ñoom tamit li ñu gisee Sénégal pour jàppale Sénégal mais wax ni ñoom tamit ñu ngi leen gën a joxaat loxo je pense que Sénégal ñi koy liggéey joxante loxo rek moo koy liggéey te man jas bitim réew suy ñi nga ñun tuddee ay fuites des cerveaux te jàppanu sax fi en réalité dañoo amatul espoir seen dëkk moo tax ñu si bëri ils ne sont pas animés par de retour mhm. mais am nañ yaakaar ku mel ni président Sonko bu ñu ko s'il euh, s'il accède au pouvoir à la magistrature suprême avec le parti socialiste ainsi que ses alliés ses alliés je pense que am naa yaakaar ni Sénégal dina weesu fii ñun ñëpp dinañ ñëw joxante loxo pour liggéeyal Sénégal Sénégal yëpp jëmmal ji si seen jëmm Merci beaucoup, Maître Abdoulaye Tall. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti euh, PASTEF les Patriotes. man moom mbégte ak bànneex laa am sa su ne su may jàkkaarloo débat bi neexoon na riche na amoon na niveau surtout. waa jërëjëf man tamit mbégte boobu man la gën a si man la gën a bare parce que franchement gis naa ni c'est la énième fois ma fiy ñëw. Mhm. te à chaque fois yaakaar naa li ñu fiy wax c'est parce que dafa jariñ Sénégalais yi. Mhm. te Sénégalais yi ñu ngi joxe ay retour di wane ni li ñu fiy wax. ñoom lañ ko fiy waxal mais également am nañ si jël si gisuloon njëriñ ñoom Sénégal bi jox seen appréciation ne mhm. ah Abdoulaye boobu ba mu fi toogati soxlaatuñ ko wala si mhm. commentaire yi di gis ne peut-être il ne représente ma leen di def ma leen di def un petit mhm. boobu bànneex ci man di wax ni tamit bon euh, di lancer un appel aux militants de Pastef di leen wax ni ñu ngi rafetlu seen taxawaay ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ci xeex bi lañu gën a suude wu gën a joxante loxo te xam ni li ñu mën moo ëpp solo foofu li ñu weesu. Mm-hmm. li fi jot a jaar ba nit ñi tiit xëbal kese la woon en réalité. Mm-hmm. ñu ngi ñëw incha allah. Mm-hmm. gën a defaru gën a wane ni Pastef en réalité c' est le de l' avenir. c' est le parti des sénégalais. en réalité Pastef la Sénégal yi tëg bët. la Sénégal yi jox bopp. te incha allah si loolu la ñuy dox di ci wax. di ci nelaw di ci yeewu di ci liggéey di ci naan di ci lekk ñu ci loolu lañ gëm Pastef nañ gëm Sénégal yi nañ gëm yàlla nañ gëm yàlla na yàlla defar lépp Sénégal yi jëm kanam. allahumma amin merci merci aux internautes yéen ñu doon topp di suivre suñu page Facebook euh, Sénégal 7 wala si YouTube bi euh, Sénégal 7 un grand remerciement aussi à toute l'équipe technique de Sénégal 7 ñu accompagné woon pour la réalisation.